ci résidence xaadim rasoul bi nekkee ci Touba fi la Serigne Mamoun Bousso Serigne Mourtala Bousso sëriñ Ahmed Saloum jeng ak Serigne Mbacke Abdourahmane ak mboolem kilifa yi nga xam ne ñoom lañu àndal ñu ñëw ngir dalal gan gu tedd gi nga xam ne moo ñëw ci dëkk bu sell bi di Touba di Cheikh Mohamed Hussein nekk mufti bu mag ci réewum Jérusalem ak Palestine ñëwoon ngir gis xalif général des mourides Serigne Mountakha Mbacké Bachir bi mu ñëw nag mi ngi ànd ak ambassadeur bi teewal réewum Palestine fii ci senegal di son excellence Safouat Ibra ginnaaw bi ñu saafuwante ak ñoom dalal leen ci lañ àndandoo ak ñoom yóbbu leen fi nga xam ne moo di ca daara Hizbut ngir ñu dalal leen mën leen a berndeel ci bërëb boobule bi ñu agsee ki nga xam ne moo di Serigne atu Diagne ak Serigne Youssou Diop ñoo dalal ñi nga xam ne ñoom ñoo di gan yu tedd yi dugal leen ci bërëb yu mucc ayib yoo xamante ni méngoo na ak gan yu tedd yi nga xamante ni ñoo seet si xalif général des sëriñ Serigne Mountakha Mbacké Bachir. l'objectif de cette visite li nga xam ne moo tax a jóg euh, nemmeeku gi nga xam ne amal nañ ko fii ci Touba mooy gën a saxal bennoo gi am ci diggante ñaari réew yu sell yi muy Touba ak Palestine. am nañ ay projets yoo xam ne ñun ñoo ko bokk yuñ door am na it yeneen projets yoo xam ne daañ ñëw incha allah mënumaa wax lépp ci kanamu taskati xibaar yi. waaye jàpp leen dañoo ñëw ngir gisee xalifa général des Mourides Cheikh Maodou Mountakha Mbacké Bachir. yàlla na ko fi yàlla yàggal te may ko wéer ak mbooleem njaboot gi daañu waxtaan ak moom ci ponk yu am solo yoo xam ne dafa ñeel suñu ñaari réew yi mufti bi nga xam ne nag moom lañu àndal di Cheikh Mamadou Hussein indaale na cadeau bu mag boo xam ne incha allah dana ko jox xalif général des mourides Serigne Mountakha Mbacké Bachir ci turu askan wi nga xam ne ñooy yeewoo ci réew Palestine ndax ni ngeen ko xamee dëkk bi ñu ñëw dafa nekk dëkk bu mag a mag di Touba di dëkk bu sell waaye it dëkk ba la nga xam ne fa la mufti bi jugee muy Jérusalem nekk na dëkk boo xamante nii ñi nga xam ne ñoom ñoo di israel dañ cee teg seen bët ak nooteel goo xam ne saasu su ne ñu koy amal ci waa Palestine te lenn tegewu ci ci yoon te boobaak léegi ëpp na juróom-ñaar fukki at bokk na ci li ñu tax a ñëw moom moo di gën a diggante askanu Palestine ak askan wi nga xam ne ñoo yeewoo ci réewum senegal ndax ku ne xam na ne réew mii di Sénégal mësuñoo dañ di taxaw réewum Palestine di leen jàppale ci jafe-jafe yi nga xam ne saa su ne ñu ngi koy dund te lépp bàyyeekoo ci réew mi nga xam ne moo di Israël ak noot gi nga xam ne mu ñu koy noot saasu ne moo tax ñu kiy sant bu baax a baax réewum senegal ci jàppale googu nga xam ne mosul dañ di ko def kilifa gi it bu bàyyeekoo fii ci tubaa bu delloo Ndakaaru dana dem Masaalikul Jinaan di jumaa ju mag ji nga xam ne tur bi mu ngi bàyyeekoo ci xasida goo xam ne Cheikh Ahmadou Bamba mi sos yoonu murit moom moo ko bind waaye di santaat Cheikh Ahmadou Bamba ak mboolem njabootam gi ak ñi nga xam ne jot nañ fi doon xalifa ndax mësuñoo dañ di jàppale jafe-jafe yi nga xam ne peuple bu Palestine mu ngi koy dund pour soutenir la justice et la paix et la liberté en Palestine fii ci daara Hizbut Tarqiyyah fi nga xam ne fi la gan ñi daloon Serigne Atou Diagne ak mbooleem ñi nga xam ne ñoom la àndal liggéey bi jëloon nañ mbooleem matuwaay yi waaye waajal ay bernde yu am solo yoo xam ne moom lañ jagleel gan gu tedd gi di Cheikh Mohamed Hussein ak son excellence ambassadeur bu Palestine bi nga xam ne moo teewal réew moomee fii ci senegal ñoom nag ñu bëgg lool ci mboolem bernde yi nga xam ne waajal nañ ko te jagleel leen ko ginnaaw bi ñu xewloo ba noppi nag ki nga xam ne moom moo di Cheikh Mohamed Hussein am na kàddu yu am solo yoo xam ne yëkkati na ko fa mu jëm ci bërëb bu sell bi di Touba waaye it li sababoon ak ñëwam ci dëkk bu sell bi. nee na mi ngi nuyu Sénégal mu ngi bëgg bu baax ci tukki bi nga xam ne tey def si ne ko Touba ngir seet si Touba seet si xalifa général de Mouride Cheikh Mouhamadoul Mountakha nee na ku ne xam na ne Sénégal cër bi mu jox Palestine xam nañ ko day na sëkk Sénégal ku bëgg Palestine bëgg xuts bu bëgg la ku leen noonu da cee am cër bu kawe kawe ci bëgg Filistin ci jàppale ñor xadiyat Filistin nu ko ñore euh, loolu nag du lu yàgg yàgg yàgg nee na bëgg na bu baax niñ ko gàttandoo ni ko sëñ bi gàttandoo ak kilifa yu tedd yi mu yebal ñu ah, ñu gàttandu si ko ànd ak moom muy borom xam-xam yi sëñ Modou Mamadou Boussoumil imaami Touba sëñ Xaasim Mbàkke moom sëñ Mourtala sëñ Ahmad Saloum Dieng daayira Rawdu Rayaahin mooy ñi ko sëñ bi booleel ñëpp bëgg na lool ci niñ ko teertoo ak fii nga xam ne fi lañ ko dalal ñu ngi santaat Sénégal bu baax gouvernement bi yëpp ngir niñ sonne ci yoonam wi peuple bi yëpp waaye nag mi ngi beral ak cant Touba ngir Touba ni mu taxawoo Palestine ak ni mu ko fonke waaye nag bëgg na ci Touba yi ngir li mu fi dégg bi mu ñëwee ñu ne ko Touba mooy dëkk bi nga xam ne lépp lu yàlla araamal kenn du ko fi def du feeñ du nëbb lool nag nee na neex na ci moom lool mi ngi tëjee ay waxam nag ne Palestine yéen a ko moom Touba moo ko moom mi ngi sant yàlla bu baax tey rafet njort ci ne balaa yàgg délégation bu mag a mag a mag danañ jóge fii incha allahu taala Touba ñëw Palestine fekk Palestine am jàmm ba noon ya génn fa bañ jullee fa incha allah ca jàkka jooju nga xam ne mooy masjidul aqsa ca Palestine nekk ngi sant ñëpp santaat na sëriñ bu baax xalifa général des mourides na ñi nga xam ne ñoom la ko sëriñ bi booleel ci ngan gu neex gi muy daayira xisbu tarxiya ak ni ñu ko toppatoo bu baax sant na it mboolem nga xam ne am nañ benn taxawaay rek ci nganam gi nga xam ne am na ko tey Touba nee na daal yëg-yëg bi mu am dëgg-dëgg mënu ko wax tax na sax nee na ba mel na ne yàkkamtiwut mooy mel na ne bu fi toogoon ba saa su ko neexee baax na ngir xol bu sedd bu mu am waaye li ko gën a bégloo nag bi mu déggee ñu ne dëkk bi lépp lu yàlla tere dañ ko fi tere lépp lu yàlla dégle moom lañ fi bëgg mi ngi santaat dëkk bi mu ngi sant borom dëkk bi Cheikh Mamadou Mountakha mi ngi sant mboolem yoonu murid. ginnaaw buñ bàyyeekoo fii ci daara Hizbut Tarqiyyah ñoom délégation bi ñu santaat bu baax a baax ci taxawu gi leen taxawu ci la ñëw fi nga xam ne moom moo di ci grande mosquée bu Touba Serigne Modou bu Bousso ànd ak waa daayira mu xaddimatul xidma ñu ak accueillir délégation bi ànd ak ñoom dugg ci biir jumaa ji fas yéene fa jullee timis ginnaaw julli gi moom gan gi présenté nañ ko kilifa yi nga xam ne ñoo nekkoon ci jumaa ji laata mu fay ko ñëw ci bërëb bi nga xam ne fi lañ denc ci Cheikhul Khadim mu dugg fi ziyaara fi waaye amal fi ñaan ak mbooleem ñi nga xam ne ñoom la àndal ginnaaw bi ñu julee timis ba noppi ak ziyaara gi nga xam ne amal na ko fii ci barabu Cheikhul Khadim bi ci lañ fa bàyyeekoo ci jumaay Tuubaa ji daal di dem ca complexe Cheikh Ahmadul Khadim bi nga xam ne moom lañ naan université bu Touba bi di projet boo xam ne 37 milliards de francs CFA la te Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké Bachir fa yéene koo taxawal ci bërëbu sell bi. moom mufti bi nga xam ne moom moo di Cheikh Mamadou bëgg lool ci projet bu ñu toll ak yitte gi nga xam ne xalifa général des mourides Serigne Mountakha Mbacké Bachir am na ko mu jëm ci xam-xam loolee lépp Serigne Mbacké Abdourahmane mi nga xam ne ñëwoon na ci bërëb bi tam nekk ci raw rawdu rayaxin leeral ko mboolem li nga xam ne moo jëm ci projet bi. ginnaaw bi ci la fa délégation bi bàyyi ko jubali ca Mbulkayel Mbulkayel di dëkk bi nga xam ne fi la Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké Bachir nekk ci fan yi bi ñu agsee nag moom gan gi. gise na xalifa général des mourides sëriñ bi dalal ko tatagal ko bëgg lool ci ñëw gi mu saafonte ak ñoom ak ki nga xam ne moom moo di ambassadeur bi ak mbooleem délégation bi nga xam ne ñoo ànd ñu présenté ko Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké Bachir. ginnaaw bu sëñ bi saafonte ak ñoom ba noppi am na kàddu yoo xam ne Cheikh Mouhamadou Hussein yëkkati na ko ci kanamu sëriñ bi. salaam ala sayyidina Muhammad wa ala wa ashaabihi ajmain wa baad. إنه لشرف عظيم أيها الأحباب أيها الشيخ الكريم bu baax moom Cheikh Mouhamad Hussein di mufti Quds Sharif mi ngi bég lool kontaan ak délégation bu mag bi nga xam ne ànd naa ñoom ambassadeur Palestine ci Sénégal ak délégation bi mu bi mu composé nga xam ne ay borom xam-xam la ñu mag yi jóge Palestine yi jóge ci yeneen réewi arab yu mag ngir accompagner ko nee na mi ngi sant yàlla waaye visite bi nga xam ne visite la bu def Sénégal neex na ko lool gis nañ yaatal gi ko peuple Sénégal yaatal tax na mu gën a dal xelam xam na Sénégal mi ngi ci wetu Palestine toujours gis na gouvernement Sénégal it nañ ko dalale président de la République njëkk koo dalal bi mu agsee teertu ko ba noppi jël matuwaay yi war ci moom yëpp yëpp yëpp yëpp ni duggee ci réew mi incha allah taala ak li ci war lépp rek loolu mi ngi ci sant bu baax a baax bu dee Touba spécial nag bëgg na loolu mi ngi doog a gisante ak sëñ Mountakha li ci la première fois euh, xam na relation yi yàgg dox diggante Palestine ak yoonu murit xam na ne yoonu murit ci daan li gën a mën a jàppale Palestine ci la bokk ngir noteel gi ñu leen not ak tooñ gi ñu leen di tooñ ngir ci histoire ku ko xam la nee na xam nga loolu loolu xolam sedd ci bokk na ci li seeral xolam ci seen Touba bi mu ñëwee l'islam ju mag jëm fi fekk ak xam gim dégg gim dégg ñu ne Touba ville la dëkk la boo xam ne daanaka mën na ne amul ci àdduna si dëkk boo xam ne lépp lu yàlla araamal kenn du ko fi def lu yàlla tere kenn du ko fi def muy xeet yu bon yëpp dañ ko fi tere lool nee na neex na ko lool lool lool ak fi mu ak ak kawe na moo tax dafa mel ne li mu ci coono bi mu ñëwee dafa deñ euh, bokk na ci li ko fi bégloo it gis ne waa Touba ak sëñ bii di sëñ Mountakha itoo gi mu itoo xam-xam tax na ba moom dem na visité bi université ba loolu gën a sedd xolam lool surtout ñoom nag ngay xam ne nit xam-xam lañ réew muñ dëkk réewum xam la moo tax loolu kon day mel ne ñoom seen wàll la université bi ak yéene ji sëñ bi am ci taxawal xam-xam bég na ci kontaan na loolu daal ci sëñ Muntaxa euh, ñaan na yàlla sëñ bi ñaanal ko bëgg na it sëñ bi ñaanal Filistin nga mu jóge jafe-jafe yi ñu am noonu yi nekk seen kaw yàlla jëlee ko fa ak eh, yàlla wàcc àdd eh, kii ci àdduna si bu baax baax ñaanal la sëñ Muntaxa it bég na ci moom lool lool lool nee na xolam sedd na ci moom ndax jëmm yu mel nii ku ne xam na ne nee na yàlla ñoom la rus ci kaw suuf si loolu mooy li nga xam ne moom la tënk wax ko kontaan feeñal daal kontaan teem lool lool lool lool lool bi ko recevoir nee na ku ne xam na ne ci xol la jógee loolu la bu bég loolu jox na ko ay ay cadeau yoo xam ne yu symbolique la kaamil bu yéemu boo xam ne liñ ko décoré lépp liggéeyu loxo la ca Philistine lañ ko liggéeyee liggéey ngir nee na dafa bëgg Philistine di des Touba ba faaw du fi génne kaamil bu ñu liggéeyee foofa Philistine nga xam ne fa lañ ko defaree lépp même décoration yi xeeti façon cristal yu jafe-jafe la waaye lépp liggéeyu loxo la Philistine lañ ko defaree ak lu ci aju al-Qur'an wa kulliyat al-Qur'an wa kulliyat al-hadara wa at-taqaddum التكنولوجيا الحديثة أنتم أهل لكل هذه الأفكار لأننا نعرف أنكم تحبون العلم والله سبحانه وتعالى كرم العلماء أمثالكم كانت قد طلبت من وزير التعليم العالي الفلسطيني أن يدرس فكرة إنشاء وتسيير مشروع ambassadeur bi tey bi mu jëlee lool rek la feddali wane ne li mu daan wax rek lay répété fu ne dana fay dem ci Sénégal waaye ni muy yaatoo ci Touba ak ni xolam di sedd du ko amee feneen loolu mu ngi koy feddali ci sëñ Muntaxa mi nga xam ne baayam la xaritam la sëriñam la nee na mooy ambassadeur bi nga xam ne manes na ne fii chaque dana fi at bi dana fi ñëw ay yoon yoon yoon wax na it yéene yu mag yu mu am ci Palestine fas yéene jàpp ci liggéeyu Sëñ Muntaxa bi mu université bi ndax xam nga Palestine borom xam-xam yaa nga fa ingénieur yaa nga fa ci wàllu gu nekk lu ci sëñ bi bëgg rek danañ ci jàppalante ak moom ak yeneen façon coopération liggéey bu am solo boo xam ne fas na yéene nee na fi waa Palestine seq ko ak waa Touba ndax xam na ne nee na ñaari dëkk ji réew la mooy Touba ak Quds benn dëkk la du ñaari dëkk jërëjëf. ginnaaw yi la kàddu Cheikh mu Mountakha Mbacké Bachir bég na lool ci yitte gi nga xam ne mufti bi nga xam ne moo di Cheikh Mawlon Sène ak mbooleem délégation bi mu àndal def nañ ko ngir ñëw ci bërëb bu sell bi di Touba waaye rawatina ci fi nga xam ne fi la Mboul nekk ak ni mu soree mu ñëw fa ngir seet si sëriñ bi. ziyaare ko loole lépp Cheikh Maodul Muntaxa Mbàkke Bachir bég ci lool waaye it li nga xam ne indil na ko ko muy kaamil bu tedd bii nga xam ne jox na ko ko sëriñ bi nag ñaanalaat na leen bu baax a baax waaye ñaanal mbooleem peuple bu Palestine feddali kóllëre gi nga xam ne dox na ci moomile réew ak réewum Sénégal rawatina dëkk bu sell bi di Touba. ginnaaw bu leen sëriñ bi ñaanalee ci la fa délégation bi bàyyeekoo daal di dem ci dëkk bu sell bi nga xam ne moom moo